asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki julli di mbokki senegal mbokki réew mi kii wax ak yéen mooy maam Cheikh Mbacke xaadim Awa Ba président AIS muy association islam le soufisme gannaaw bi déggee benn déclaration boo xam ne jóge na ci euh, imam xaadim Ndiaye bi nga xam ne mooy secrétaire général bu Rabita euh, AIS bi mu déggee déclaration boobu muy yëkkati ay kàddu di ko toftal ci déclaration boobu xam ne wax na ko. ba wax ne mi ngi wax ci turu suñ euh, ay ay ay ay kilifaam ne nañ wax Sénégal gépp wala àdduna bi ne leen rabita bi yónniwul AIS waxuloo ko ci turam euh, AIS nag bëgg a ñëw yëkkati ay kàddu toftal ko ci premièrement mooy kenn ku mas a dégg AIS wax ne mi ngi wax ci turu waa rabita ah loolu day bu fekkee ne audio boobu am na wala kenn dégg na ko télévision yi mën nañu koo indil déedéet loolu amut ndax AIS day ak kuréel goo xam ne l'islam moo ko tax a jóg ak servir soufisme muy sàmm ndono mag ñi baax ñi sàmm ndono mag ñi baax ñi nag ku ko bëgg wax ba pare génn ci alxuraan ak daara damaa jàpp ne kon yow yaa bëgg a xañ mag ñi wala boog yaa bëgg a tàqale mag ñi ak alxuraanu karim ndax mag ñi seen ndono du dara lu dul alquranul karim la Sëñ Tuubaa waxoon ne bi xidmatil kitaabi wal xadiisi yasbutu laa bi dahabi mawruusi noonu la ko Sidi Haaji Malick si waxee noonu la ko maam Abdoulaye Niass ñoom ñëpp eh, jëmbate la seenu njaboot sëñ bukku na jaasa mboolem mag ñi fi nekkoon ñëpp ba tax tey ñu naw leen loolu def muy seenu déclaration eh, kon nag képp ku jug jug ne damay sàmm noonay mag ñi te sàmm alquran karim te alquran mënee mëneesu ko sàmm lu dul fañ koy sàkkoo ci daara ya te ñun ñëpp ñu ay doomi daara di jàngale alquran karim yor ay daara ñu màgge ci yaroo ci xamuñu lu dul alquran karim ci loolu jox loolu ñu xëy guddeeg bëccëg loolu na képp ku bëgg a taxaw ne la yow bokkoo ca wala waroo caa wax kooku dey war nañoo seetaat ay mbiram bu baax a baax a baax a baax euh, ndax Serigne Touba radiyallahu anhu daan wax ne euh, daan boobu daan misaal lenn ci Serigne si. nga xam ne bu ab taali bi jógee fii dem ca keneen mu mer ko sëñ Tuubaa daana wax ne ah, sëriñ bépp sëriñ boo xam ne sab taali bi bu jugee ci dem ca keneen mu metti la ba tax ngay gisee neneen wala waxee neneen sëñ Tuubaa dem na ma tabban li hada cheikh ndax wax na ca ne bu fekkoon ne salaaxu taalibi bi rek moo ko yitteel mooy taalibi mucc kese moo ko yitteel fu mu baaxee rek nee na fu mu mënee am ak baax rek loolu da koy neex da koy bëgg ci moom loolu lan laa ci war a dégg mooy képp ku jug ne day yëkkati alxuraan karim day yëkkati daara bu doon sàmm ba ci àll ba sax nga xam suñu ko xam ci alxuraan karim ah kooku damaa jàpp ne bu ñëwoon sax ne day yëkkati alxuraan karim nañ xool ba ci cappaandaw ga wala boog ñu ne ko ñëwal fukki loxo juróom ñu ngi nii ndax amuñu lu alxuraan te alxuraan julli ñëpp ko seq julli ñëpp ko bokk ka ci jàngale ak ka ci a ci yem ñëpp ko bokk macha allah tabaraka rawat na ñoo xam ne nag ku leen tudd tudd alxuraan karim kon li ma bëgg a wax foofu rek mooy ay AIS képp ku bëgg génn ci alxuraan karim ne Euh, moom waru caa wax lee lañ ko xamee yaa ngi def njuum te lu rëy rëy rëy mi ngi mel nga bëgg a génne liggéey mag ci alquran karim te nag ñun lépp lu ñu xam mooy li xidma tasawuf liggéeyal alquran liggéeyal maanaam tasawuf te tasawuf mag ñi seen lépp mooy alquran karim ma ko waxee léegi misaal ci Sëñ Tuubaa te noonu la yàlla ci mag ñi fi nekkoon ñëpp macha allah tabarakallah kon nag déclaration bi nga xam ne imam Xaadim Njaay yëkkati wax ko ak li jot a tënk sama diggante ak moom loolu alhamdulilahi rabbil alamin may na ma ñiy may na leen kon ne ah contact bi war a am ka sama digganteeg waa Rabita amal naa ko te am na ñu ma ci mën a seere ndax bind nañ ko leetar ca bu yàgg ba mu yàgg ngi di ko yëgal ca leetar bañ doon bind sax bañ ko waxee ne ko ñu adressé ko ci wala ci euh, sëñ Bachirou mu ne nañ ko adressé man xam man maay aminu aminu am bi loolu ca décembre ba la woon macha allah tabarakallah kon moom comme wane ne jokk naa ko rek alhamdulilahi rabbil alamin ndax nit ki bu la bu la yëgul wala bëgg laa boole ci mbir du jokk yow en tant que secrétaire général lañ ca waxaat yaakaar naa ya macha allah tabarakal ay waxam ñu bari dégg nañ ko ci nam ca waxe ak nam ca kiyoon léegi nag li ci am ba am mooy AIS euh, bien avant dafa am ndigal kilifa diine yépp suñu xalifa généraux yi suñu xalifa généraux yi yaakaar naa ñoo yilif ñi wax ñi ci ëpp ñoo leen yilif la ko dale sëñ Abdou Aziz Ami ak sëñ Sidi al Moxtaar Mbàkke ba agsi tey sëñ Babacar Si Mansour yàlla na fi yàgg te wér ak sëñ Muntaxa Mbàkke ak mboolem xalifa généraux yi fi nekk ñu ñëpp dañoo am seen ndigal di liggéey ngir sàmm taso ak mag ñu baax ni ak liñ fi bàyyi ñëpp dégg nañ barki dem kàddu yi sëñ Muntaxa Mbàkke yàlla na fi yàgg te wér kàddu yi mu yëkkati waxal ko boppam kon ñun li ñuy liggéey liggéey luñ ko raabita liggéey luñ ko fédération liggéey ko benn kuréel boo xam ne da ngaa ñëw ñu la ko déedéet suñu bopp la ñu liggéeyal alquranu karim ñëpp a ci bokk yee ñëpp ci ñëpp ci ñëpp ñëpp ci sañ wax ñëpp a ci sañ yëkkati du ne ñay jàngale fenn lañ bind ñay jàngale yéen war a wax alquran wala war yéen wax dang déedéet loolu amul fenn ku am xadis wala nanga dama ko ah, kon bu fekkee ne ñun suñ xalifa généraux yii jox nañu ndigal ñuy liggéey liggéey mucc ayib ba ñëpp rafetlu ko teg seen loxo ba ci suñu xalifa yi mujj muy sëñ Muntaxa yàlla na fi yàgg te jàpp naa ne loolu bu ñu doy ñu ne AES dara ñu doyati ah lañ doon def nag mooy dañoo fekk ay jàmbaar ñu nekk ci tool bi mu mel ne fédération ak rabit ak AGF ak ñi fi nekk ñëpp avant ñuy jugg ci mbir mi kenn ku ne jot nañ la bind nañ la leetar signé ko envoyé la ko loolu waa fédération mën nañ ma ci man waa waa fédération mën nañ mën nañ ma seere AGF man nañ seere waa jamaat Ibrahima mën nañ ma seere waa Chidi mën nañ ma seere ba ci rabidi bi tey ma doon jëflante ak imam Khadim kon loolu jàpp naa ne ku bëgg defar moo koy def ndax jullit ñi seen i mbir seen seen seen seen i yëkkatiku mi ngi nekk ci seen waxtaan seen i dégg wa am lu suura baynahum kon loolu lañ njëkk a def te imam Khadim wax nee na doon naa jokkonte ak moom ak ni mu ko tënkee te mbir ma gën naa yaatu loolu ba ci li am ak lépp ba ci ba ci ci tournée bi ñu doon def am na ku ma booleel ko xam ne imam moom la ma booleel xam naa ki ma booleeloon bu déggee waxam ji ah moom tey dana am ak jaaxle ndax moom la ma boole ma doon jotanteek moom téléphone ba mu am ñu ma jot a ñoo xam ne fi joto jaar am na ñoo xam ne jot nañoo ñëw ànd ak ñun ci tournée bi ñu doon def ba noonu tamit lool laa doon wax ndax dama ne ànd nañ ceeg ànd nañ ceeg bukkut ma ñooy wax seen li ñu def ànd nañ ceeg te wallahi wala wallahi wallahu ala ma naqul ak yàlla laa koy seeraloo imaam Xaadim mi ngi may dégg moom mi ma doon jëflanteel ak ki ma doon booleel ñu may dégg moom bu ci ba ci sëñ xaali jaxate mi nga xam ne jël na ci tem doon wax keroog bi ma ko gaaral dana sëñ xaali de mooy rabité bi mooy rabité bi bu xasee ba dugg rek alhamdulilah rabbil ñun baax na sëñ xaali jaxate dana déglu audio bi ñu ngi may déglu baax a baax kon dama jàpp ne coow lii ak wax ji dara àdduna jëru ko fi ndax ñun liggéey moo ñu tax ay doomi daara doomi alxuraan kan la jóge ñu jógee ba léegi suñu tànk dañ koo teg ay ndaw lañ waaye dañ koo teg ci siratul mustaqbil góorgóor défendre mag ñu baax ñi défendre mag ñu baax kenn mënu ko wax ne tuddoo alxuraan kan tuddoo daara kon buñu demee di ay ndaw ñu war la encouragé war laa tatagal war laa yiir war laa andi buñ demee ba ñi nga xam ne ñoo waroon def lu mel na ñoom ñoo taxaw gisuñu la ci lenn lu ñàkk fayda gisuñu la ci mësuñu la caa dégg li nga gis lépp mooy loo xam ne yaa ngi koy doxal mu ànd ak fulla ak fayda loolu jàpp naa ne bu amee euh, moom imaam Xaadim Njaay wax ne dañ ko wax ne ku ne yëkkati kàddoom wax ne ah AIS la wuñ ko tur rabita maa ngi koy delloowaat question bi mooy AIS musu la wax ne day wax tur bi lëm la bind woon lettre en tant que secrétaire général ba nga joxe sa sa aval te audio yi lépp mi ngi fi nga bindoon ko wax ko ànd ceeg ñun di ci liggéey li yàlla lañ koy seeraloo yow xam nga yàlla suma suma xam nga ki ñu bindoon leetar bi nga xam ne mooy suñu secrétaire général te bind ko mu ngi may dégg te bokk ci rabité bi la bokk dëkk kokki macha allah tabarakallah kon ñun ñëpp xam nañ mbir mi ak waa secrétaire général bu AIS ak ak ak waa bureau bokk kon jàpp naa ne buñ demee ba mbiri toll fii nga xam ne liggéey pour ànd pour ñëpp ànd pour nañu mën a soqali daara teg ko ci xam-xam ak ni ko wax si audio bi nga wax ne ay est-ce ñëpp la ci dugal kon jàpp naa bu ñu demee ba toll fii yaakaar naa jël benn audio boo xam ne ci àll ba la jógee am ku ci wax ne AIS daa bëgg bala ñoo def dara ci daara ñu jaar ci ñoom loolu bu fekkee ne moo tax ñu jël audio boobu di ko envoyé ay kilifa bañ na kilifa yooyu neen nañ wax ne AIS bukk maanaam maanaam wax la wuñ leen wax defuñoo nangam loolu damaa jàpp ne war nañoo xoolaat suñu bopp ñun waa daara waroon ñoo xoolaat suñu bopp ñun ñooñu alxuraan karim waroon ñoo xoolaat suñu ñun ñun ñi nga xam ne dañu bubb dañu dañu dañuy dund ci diine ana lan moo waral féewaloo gi ana lan moo waral tàqalikoo gi ana lan moo waral xatal gi ana lan moo waral lu tax yéenante wuñ buñ ko nee nii alxuraan nii mu mel na lay continuer diine ji noonu mel na lay continuer ndax yàlla wax na ci alxuraan wa tanaaza'u fa tafshalu wa tadhhaba riihukum moo man sax mën nañu jum comme ay ndaw lañ mën nañu jum sax ah ñu wooñu bu dee si Abdou Aziz Touré kilifa la bu dee suñ bés abi ak keneen ku man doon ñu ñëpp suñu kilifa lañ ne ñu ah kaay leen comme amoon nañ euh, wayu dem ba àgg ci yenn dëkk yi seeti leen ñu ñëw toog waxtaan bu fekkoon ne loolu am na sax waaye dara amu ci ci ci ci liñ mën a tuddee njàpp ay njumte kon ma jàpp ne kon euh, loolu moo waroon moo moo waroon nekk bu ko defee lépp dëkk ci biir daara ji lépp nekk ci biir mbir mi ñu mën a ànd nekk wenn say pour yëkk diine lislaam waaye lii am day muy déclaration bi ah bu fekkee ne ñi ko def dañoo jàpp ne ñoo moom daara wala ñoo moom diine ba ñoo ci sañ wax wala ñoo ci sañ yell ah xatal lañ diine de xatal lañ diine lool sëñ Saliou Mbacké daan wax ne du fekk mukk lu yàlla suma subhaana yaatal ma di ko xatal kon encore une fois moom lay jaxal déclaration AIS mus la wax ne mi ngi yëkkati doom euh, ne day waxal rabi rabita déedéet dañoo bind waa rabita secrétaire général mu tontuñu xam ne am na ci ñu à cent pour cent ba fuñ mas a dem dañuy wax ne li ñu def kat fédération imam Moussa Lo dalal nañu am na ci ñu à 100 pour cent ba imam ba euh, imam Adama Seck Euh, secrétaire général am fédération moo mën ci jël benn thème ak ñeneen ak ñeneen AGF bu sëñ jiri ñan am na ci ñun Chidi Kasalika même jamaat Ibad Rahman Amir Lam loolu la mu wax donc kon bu ñëwee ba toll fii nag ñu jël ab audio envoyé ko suñu Abdou Aziz Touré moom imam Khadim Ndiaye envoyé ko ba pare wax ca wax joo xam ne leeral ca ne ah AIS kat dama ni ma gisee nii dafa mel ne daa am ñu nekk seen ginnaaw ndax seen tournée bi ni mu rëyee ak ak liñ ci def dafa mel ne am ñu nekk seen man daal mbir mi jar naa xalaat loolu nag kilifa goo ko wax. wax dëgg fa yàlla kilifa goo ko wax da nga teyal xelam alhamdulilahi rabbil alamin ba ñoom suñu Abdoulaye Touré ñoom ñëpp suñu kilifa lañ jox nañ leen cër bi jox nañ leen oh, maanaam wàccuwaay bi jox nañ leen lépp ak sëñ bés bi ñoom ñëpp suñu kilifa lañ jox nañ wàcc jox nañ cër jox nañ lépp waaye daal nit daal bu fekkee ne dañ ko wóoru ci mbir di ko liggéeyloo war naa fexe ba amaana boobu mu teg ko ca nam war a amee nam war a defee sinon waliyaas billahi taala mi indi mooy déclaration mel te amul benn njariñ amul benn day gën a tasaar rek waaye amul benn njariñ kon nag kaddu yi la AIS doon yëkkati di ko toftal ci déclaration boo xam ne imam Khadim njaay def na ko ne mooy secrétaire général ba wax ne rabita bi nee na nangam AIS mi ngi wax ne waxuti tur rabita bi soxluwuta wax ci tur rabita bi rabita bi kuréel la gu fi nekk AIS nekk kuréel gu fi nekk ak ni fi yeneen kuréel nekke kenn ku am nga sañ-sañ liggéeyal diine te kenn mënut a liggéeyal kasu ak sàmm leen te sàmmoo alquranu karim bi nga xam ne mag ñi lu am ca lañ ko amee lii mooy déclaré ay wa rahmatullahi taala wa barakatu